bismillahi wa ala millati rasuli wa manhaji la qadim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh lii dafa nekk ay poñ yoo xam ne war na toll ci juróom-ñeent ba ci fukk ba ci fukk ak benn yi ñuy baaxante ak mbokk yi ndax boo ne mbokki taalib yi rek day limité day mel ni ñi nga xam ni yéen a bokkale dimension bu ngeen di dund ku tedd ki te ya ku tedd ki nag moom ndem pour ñëpp la moo tax booy wax rek da ngay yaatal poñ bu ci njëkk dama wax ni boo bëggee sa tuub ci yàlla di nangu da ngay taqu bëy bi muy waxee fukkulu naa yarju musa dafa tan astafirullah addaafan mudaafatan daanaka boo bëggee loo xamante ni bii duubul nga ca bëgg itam bu la neexee taqu bëy bi lii ay mbiri boppam la ku tedd ki waaye li ma jublu mooy la cay takk leer mbaa la cay ruuse la mu la cay baaxe loo ca am da lay doy moo tax niki noonu itam boo bëggee itam suñu borom di la ñawante ba pare ñu lay defal dévoilement ci nga xam ne dafa dafa nëbbu boobu itam man ngay gànnaayoo tuubu ilallah waxtaaju mu la tafatan tahuz xulubukumu xaw mi mu kaa shafatan nga waxi ku tedd la bu bëggee salaatu ala nabi bi gën a matali itam julli ci yonent bi nga taqoog allahuma salli ala sayidina muhammadin hadada maa fi amila salaatan daaimatan fi dawami mulki la gën a matali ci salawaat yi fekkente ni danga bëgg nag danga bëgg ba mel ni man bëgg yu raar bu la neexee da ngay taqoog bi ñuy wax inna lazi min al ilahi hustu wa xaaba xanil kaw ni wa fiihi fuztu lum la ci rousalal ci leer gogu rek manam dalay doy seuk dal bu fekkente ni nak eh, da nga bëgg bu fekkee baykat nga te bëgg bo bayee am récolte bu la yéem mbaa ngay commerce bëgg sa njaay jar bu la nexé da ngay takku bi mu nan illa yaqada bin nabiyil khasda wa fi basatini udimul hasda wala bayit ba mu naan baal ilaahu laahu aniya bila iqalatin ma bayhuhu li xabila ba bëggee nag foo nekk di mën a mucc fu mën a doon moo xam ci sa kër liggéeyukaay moo xam endroit boo dem moo xam bato moo xam avion moo xam oto moo xam boo bëggee daal foo nekk rek di mucc nga tax ko bayit bi mu naan xafisani xasamani najjaani allamani man bil huda najjaani ba bëggee mucc ci ñi nga xam ne ay ay samba buy lañu wala yooyu ñoo xam ne dañoo perte wala yu demee noonu ba noppi ñi nga xamante bi dañuy reconnaissant sopp la ñi nga xamante ni bi waaw maanaam dañoo dañoo reconnaître ni lu am yàlla reconnaître ni bi reconnaître ni yàlla amna reconnaître ni moo leen bind reconnaître li yi xew nga lu xew rek dañuy xam ni lu mën a doon ni ko ko tedd ko waxee rek wax ne abduru wa nafu min arrahmani laysa min albidani wa sudani lu mën di xew rek nga bu ci yalla andul won du meuna xew waaw bu fekkente ni ñooñu bëng ñu doon sa soppé ba bëgge ñu sopp la ba nopi nga mucc ci ñi nga xamne dañoo perte na nak nga bi bi mu naan azhaba rabbi li siwayal qasirin, xaasirin li shakirin bu bëgge sa addiyee nak di nangu di la jural lu nekk ci wiw ba hmm. taqoo li ma naan fal hadiyatu tajzabul muridina ila saada lu وحلو المقام وكثرة المال ومحبة الناس إليه وسبق الإقرار bu bëggee nag malaayika yi ak yonent yi yépp def la xarit wutal benn mbubb nga bind ca jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ca gannaaw loolu loolu moom la ñëpp war a def daanaka bi abiyaat yi mën nañ ma ko bàyyee moom ku ci yore magasin nag mbaa liggéeyukaay bu mën a doon hmm? boo fa bindee benn bëyit en bayit boobu moom lay aar di aar barab ba di te ku ko xool itam ku ko xool bayit ba ku ko xool maanaam euh, leer jóge ca dugg ca kooka mu nekk mu mën doon lu ko mën a jariñ àdduna ak àllaaxira moo tax nag euh, mbokki talib yi moom wax gi ma wax ni kenn ku ne war nga am benn mbubb boo xam ne ca gannaaw da nga ciy bind jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu rasoul waaw mu nekk daayira nekk benn cercle ci ci gannaaw mbubb benn mbubb rek lay doon mhm. kooku ku am da nga koy denc rek bis bu ñu nee ayca rek ñëpp sol ko waaw bu doon million yi doomu aadama itam malayka yi di ci bég rek ñu xam ni lii kat waaw nga ñu xam ne kii mooy ajabul ajab mhm. waaw mooy ki gën a yéeme du yéeme mhm. lii kat la lii lañ doon dinañ leen ko baaxee waaw tey ci altine ji nga xam ni ci la waxee ni madda ilaya nafan fil kawnini bi jaahi man wulida fil ijtinani yàllaa ko jox émergence ci barkeb kii juddi ci altine bi di gën ji mbindeef alayhi salaatu wasalaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu